tv point com ñu ngi jàkkaarloo Père Max Mbargane ñu ngi fii Thiès signature contrat Père Max yow ma bëggoon a xam Père Max Mbargane lan la seere ci Leewtoo production. non euh, montage combat yi maa ko géré bon moo waral euh, te bëgg ñoo yem Dakar rek dañuy décentraliser ñu porté on suñu choix nag ne njëkk a ñëw Thiès tey nag mooy ñu ngi waajal première journée bi. tey di face à face bi di samedi 3 février mais lamb ji samedi bi di ñëw lay la di février waaw. après bu ngeen jógee Thiès fan ngeen jëmaat. waaw bu ñu jëmee Thiès ñu nga jëm euh, Diourbel le 24 février diggante Forza ak euh, Abdou Diouf waaye spécial ba nag Tanor bu Diourbel moom la ñu jox Malem ñaani ndax ñoom yàgg nañu bokk ci tournoi Diourbel yi ñu leen di tëkkale te mosuñoo dajale mosuñoo daje moo tax spécial bi rek grand combat la waaw. kon daal février a ngi Thiès yéen a ngi Diourbel. après mars le 11 mars nag ñi ngi jam jëm stade euh, Léopold Sédar Senghor diggante Boy Niang ak Sa Thiès werente am euh, werente amul ci ne bu dul combat bi dàq ci saison bi bokk na ci combat yi dàq ci saison bi waaw ñu ànd ceeg Leewtoo Pape Thialis Faye Pape Thialis bu Leewtoo production Pape Thialis ñu ngi lay ziar. waaw ñu waa Lutte TV di ziar ñëpp. Pape mu mel ni Pape Thialis dafa ñëw ci làmb pour di décentraliser. nga permettre jeunes yi nekk dans les autres régions aussi mën a am possibilité dund làmb en direct mooy gis si bëre ak am face à face direct si làmb. Modou Lo Bombardier nit ñaa ngi koy wax est-ce que Pape na tëggu ko. Modou Lo Bombardier waaw xam affiche moom. Euh, Max mooy gérer affiche yi moom lu mu wax rek ñu nañ ko tëgg rek incha allah dinañ taxaw tëgg ko. ñun dañ déggoon sax ni Modou jot na avance sur Leewtoo production loolu fu mu mujjee. waaw loolu la bu nga wax. moom bu avance waxatuma ko. Ah, Pape Thialis Modou Lo bëgg ngeen ko. waaw bëgg nañ ko bëgg nañ mbër yëpp nekk VIP yi mbër yëpp bëgg na leen tëgg. ne boo xoolee moog tafaati ñooy VIP yi pare yi bëre ba pare. waaw loolu dëgg la bëri na ñoom ñaar ba pare des na ñeneen si ñoom ñu xaar ñu bëre comme Balla Gaye comme Bombardier comme Eumeu Sène bu ñu bëree rek après ñu xool combinaison yi nga xam ne war nañ ko tëgg incha allah dañ si taxaw tëgg ko. tafaatin xalaat ngeen koo joxaat adversaire ren non pas ren parce que rek bu fekkee li ñuy bëgg bu fekkee am na. parce que xëy na ouverture dooñ mu am bu fekkee lu ñu bëgg amul aussi moom bu si xajee dañ ko si xajal. lan la guerre bi ñàkk nag. ñoom ñëpp benn lañu rek. dafa teg victoire ñoo ànd. waaw mais kuñ si am possibilité pour tëgg la mu nekk lu baax ñu raisonnable rek ñu tëgg ko incha allah. Tafatin lan la guerre gaa yaa koy wax de. ah waaw bu possible bu max kii am max mooy gérer loolu moom bu nee baax na la ñu tëgg. Père Max Tafatin ñi ngi waxtaan kun ci juboo rek sa chance ne ci danañ la tëgg incha allah waaw. mais Modou Lo moom jëlul avance. Modou Lo bëgg nañ ko. comme ñëpp promoteur yëpp a bëgg Modou Lo nag. da ngeen ko jox avance. bëgg nañ ko. jox ngeen ko avance joxuñu ko avance bëgg nañ Modou Lo. tv point com ñu ngi Thiès Baye Mandione ziar nañ la lay ziar bu wér a wér a wér Baye Mandione ñu gëjoon laa la nga ñëw tey Thiès yëngal def nañ la xamee woon Baye waaw rek mais samedi yàggatul da nga koy naj ba samedi la incha allah mais xam nga ngay bëreel Modou Anta lépp laay def bëre xeex tout xam nga Modou Anta xaw ma de xaw ma loo koy pareel. ma koy pareel samedi lay leer ndax bër boo ko fekkee da nga koy bàyyee bés bi jox ko ko lépp waaye daal ku bëgg a gis bëre bëgg a gis bëgg a gis da ngay ñëw Thiès ci diggante Baye Mandione ak Modou Anta. combat mën naa jeexe ci ci xeex. non non du jeexe jeexe ci bëri lay jeexe xeex kuy ubbi waaye heure bu ñu jàppantee mu jeex. ñoom ñaar maanaam kan nga yaakaar ne moo ci war a sàcc doole moroomam nga ne. ku ci war a sàcc doole moromam ñoom ñaar. waaw xam nga Baye Mandione du mbër mu Baye Mandione du mbër mu ndaw la dafa teel a bëre parce que Baye Mandione taay bi mu am ak moo Anta taay bi mu am pour nga wax ni kii moo ëpp doole loolu ku ko wax ci bakkan nga ko teg mais mënee su ko atte lu dul arbitre la ñu ni renkum ñoom ñaar ba tàqali koo dellusiwaat nga door a xam këpp doole. am na favori. noonu non amul favori ku ñëw gën a jox bés bi cër. fonk ko bugg ko def ci li ci war ndeysaan Baye Fall baa ngoog Modou Anta ginnaaw bi Baye ma joon ñëwee ba toog Modou Anta ngoogu Lamine ndeysaan ñu ngi koy wey Baye Fall ndeysaan dalal na loxo yi dana jóg leen waa dëkkam la nekk Thiès waa yaa ngi bërek mbër mu doy waar Modou Anta Baye Mandione du dellu ginnaaw waaw waaw Modou ngoongu saxub saccu yoru kaala solum laafa waaw waaw kookoy Baye Fallou Thiès bi ay soxor Kanja ziar nañ la. booy maa ngi leen di fay maa ngi leen di fay baax. Modou tey ni nga ñëwee ci place bi neex na de. waaw mais sant yàlla rek sant yàlla baax di julli ci yonent bi di sant sumay ñaari waaju di sant suma sëriñ maam Salim mu sëriñ Zangun. mais Baye Mandione da ngaa ñëw rek mu jóg ne la day rendi. waaw waaw moom xam nga loolu àggaguñ ci quoi incha allah nan bàyyi ba bis rek fi mu ah, wax jërëtul muy bari nan bàyyi noonu ba la. wax waa Thiès samedi. non waa Thiès aw ma seen fay di leen a a kanam rek suñu borom may ma ndam incha allah waay bàyyi nga ne lan. dama ne tey rek waaye ndam incha allah du am dara kii am tus. moom mag moom mag la la de. ba ba ba man ma nekkee ba xanaa moom cent onze ans la am. lu mu ñëw rek nga jóg songu ko ne da ngay rendi rek yow. Ah, kaa yàkkamti rek. <laughs> Ah. kooko ziar naa delloo naa la ziar tur bu yeen. koy dajal. maa ngi daje Marley 2. loo ko bëgg a def. waaw xanaa rek wan ko li nekk ci man jàpp ko daan ko quoi incha allah. mbër naa la. maa ngi ziar Babacar. Mamadou Diouf Dóola. kan ngay daje. maa dajeeg Aboy. loo koy wax. Aboy li ma koy wax de ko ñaanal yàlla rek saa borom defal ko jaamu bu jour ba. loo koy def. suñu borom defal ndam lu rëy laa bëgg si kawam te dama koy ñaan yàlla ma yàlla def. di woo bool gébu nag. kër koy daje. bébé aar laay dajal. waaw. loo bëgg a defanteeg moom. bébé aar daal xam naa ne dama koy nax rek jëndal ko sipsi waaw. lépp mbër ziar naa la. mbër koy dajel. Modou Modou. waaw Modou Modou Mbaye. waaw yow noo tudd sax yow. man Petit Elas. Petit Elas. waaw. loo ko bëgg a def. man li ma ko war a def kay dama bëgg a xaar boo ci ci heure bi waaw ma defal ko bagage waaw. kon euh, naa la. waaw ah, ñu ngi doole ziar. mbër tur Elton Elton bu kon Mamalade. <laughs> waaw. Elton ku muy dajel. Boy Naar Fall écrit Jal Birama Thior. loo bëgg a nafante ak Boy di ñaan jour ba yàlla. yàlla may ndam lu sedd guuy te gaaw si barke Seydina Ahmad sallallahu alayhi wasallam waaw waaw ni ma koy wax ne su ma dëkk la ma fekk seeg du ma ko may dara su bëree mu gaaw su xeexee mu gaaw incha allah. Delloo ziar Lutte TV yow de ki ngay bëreel yéen ñaar comme ay seex. ah waaw loolu la yàlla dogal <laughs> loolu la yàlla dogal kon. loo bëgg a defanteeg moom da nga bëgg a dóor sa seex wala. non man xale laa tëngéej laa dëgg te tëngéej dafa am cër si làmb te dama ko war a jël man dama war a boo tëngéej bi laay walaay. ki ngay dajal nu mu tudd. Elton la Elton bu Thiès. Elton bu Thiès loo ko bëgg a ndil fii. jàpp daan ñibbi rek waaw mu bëgguma fee yàgg bëgguma yàgg dëkk bi daal moo fi yàgg dañuy xam sama jikko te bëgguma waa dëkk bi xam sama jikko. mbër tur wi nan la. cere caq. cere caq waaw cere ku muy dajeel. ki ma dajeel saa kees bu Dakar xaw ma ko gisaguma ko moom. loo koy wax moom. li ma koy wax a ah waroon naa ñëw si ñaar gisaguma ko xaw ma na ñëwam déet mais yaa na bu nekkee lu ko téene ana newoon jàmm ba bis ba mu ñëw si jàmm ak salaam ah. waaw. Dolo Bégué. mbër koy dajel. Arobas. Aliou Bass ngay dajel. waaw moom lay dajel waaw. yow noo tudd sax. Marley Junior. ah Marley Junior. waaw looy defanteeg moom di el samedi. waaw defanteeg moom lu neex rek. waaw dina metti dina tàng. incha allahu rabi. mbër ziar doole ziar. mbër tur la. Aboy. ngay dajel. Adama Diouf. loo ko bëgg def samedi. waaw ah, samedi ana jàpp rek bu yaram bi dee wet ma daan ko waaw incha moom pom la yor. pom moom defe naa neex na ci dessert Baye Fall ziar naa la. waaw ñu ngi dolli ziar di sant yàlla bu baax a baax. Baye Fall koy daje ah, Baye Fall tur wi. Bébé koy daje. bu dee laas bu sàngal kaam. Bébé pom bi lan la. sama yaay ma ko jox rek ne ma comme dangay comme xale nga dangay xiif yenn saa yi yor ko. ko si ñaari contrat ba. waaye avant tout nag maa ngi sant sant ñi ma jàppale ci combat bi. waaw ah, ñu ngi delloo ziar bu wér-wér. mbër tur wi nan la. man maay macha allah rakki boo ñëw. kan ngay dajeel. maa ngi dajeeg euh, moom mooy CFA CFA dama ñëw jël ko waa def ko sama poche. loo koy xaare samedi. waaw moom mooy CFA li ñëpp di wër CFA la dëkk bi yëpp di wër man moom laay wër mbër yëpp moom la ñuy wër. Ah. waaw moom nee na mooy CFA léegi dama ñëw rek jël ko def sama poche ñu dem ñibbi rek si kàttanu du ma ko doon ndànk sax. man ko ba ma ko jàppee li nga xam lépp dëgg la armée laa nekkoon armée nga alxuraan gaa yi ñoo la daw non yàlla ak dogalam façon tournant bu nekk jël naa foofu biir armée asfa sélectionné na ma ñëpp du nuyu waa 44e promo bi policiers yi 44e bi sama classe ñëpp dañaa ñëw man la ñaa supporté billaah ñoom ñëpp dañaa ñëw man la ñuy supporté hmm. alors Cheikh Walo ma bàyyi la tamit nga woo waaw maa ngi kenn ku nekk turam ak sant maa ngi woo mbokk waalo waalo yëpp luy waalo waalo rek maa ngi lay woo pour combat bi le 10 incha allah yatu kel xaw ma yatu xaw ma karbala yow ko am problème nga yow yow sañ-sañ jërëjëf sañ-sañ waajur sant sama gars yi ma àndal ñoom ndaayaan yaa a gën a xam booy waa tëngéej ji booy na ma lay wax ni man du ma tapet man tëngéej a jóge ñëw fii barki Serigne Babacar si dama lay daan force yéen waa Thiès yéen laay waxal kii fecce ngeen ko sant man bëre la ñu ma sant barki alxuraan kii dinaa ko def job ju bon yéen ñëpp laay waxal di sant sama gars yëpp sant suma adversaire bu baax a baax a baax mooy comme ni ma ko waxee woon rek ci courage bi mu am pour nangoo jël sama avance ñëw cees parce que promoteur yi yàgg nañ koo bëgg mais kun ko jox rek mu rasu mais moom gaynde la góor yàlla la te du daw kon dama lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm fii nag suñ dëkk la ah ñun ñoo ko moom fii nii ñoo ko moom ñoo ko ko li ma ko may fii li ma ko may du ay wax lu mu doon du campagne uh-huh. du politique wax ma lu liggéey moo ma ko may foo fi ma jaar bari na kii ngay dajeel ndax xam nga ko bu baax mu donta xam naa ko bi muy bëre maa koy seetaan uh-huh. bi muy bëre ay Mbay Juuf ay boykar yëpp maa ngi koy seetaan boobu duggaguma sax ci làmb mais ma dugg am fu ma teg suma bët dem chef de l'état toj ko jóge fa dem équipe nationale Thiès ba mu daj mel man la kii seetaan nga digganteem ak Gris Bordeaux seetaan naa ko seetaan naa digganteem ak Modou Lo seetaan naa combat am yëpp seetaan nga digganteem ak Papa seetaan naa ko seetaan diggante ak Boy Niang xam naa ko bu baax diggante Baye Mandione jëlal sa temps rek doon day wuyu ma seetaan nga bàyyi ma ñun Modou Awa seetaan naa ko moom Modou Awa tin déggu ma la bàyyi ma ñun bi muy bëre maa ngi ci télé bi toog di ko seetaan ah lamb de na xoolal moo ma indi fii bàyyi man lay aw ma lu may wax ndax xam nga moo tax. man dama koy sant di ko gërëm di courage bi mu am. pour bëreeg man. non jàmbaar bi jarul ko booy nuyu mën a woo fii wuu ji day bëri wax leen wuu wuu aywa ngi dem. maa maa mi ko rek maa leen gën a porté yu de kon nag déglu leen yaa ngi dégg. waaw man dafa am loo xamante ni wax dëgg yàlla man ku ma jox cër laa wallaahi mais dafa am soppi bu mu def moom gars yi invité ko kii foo ko anam sax. Pape Maguette moo ko def. moo ko seet woon. dégg mu wax wax boo xamante ni man dama cee rus ndax waxaluma sama jikko mu ne man damaa fay ay dëkkandoom ay maire a nekkees ku ne dix mille mu ñëw këram a fa def ay gàllaaj billaahi wallaahi taala fekkee bon maa def loolu man bàyyi ma jël yàlla maam tam si ko Père Khadim dafa wax benn wax mu ne man mu ne man naa may gis nga fekk la xoolal man mënu maa jaxase sama dëkk man lu wax di deltu ginnaaw déglu ma rek déglu ma tuuti rek max la yàlla sunu borom rek laa ragal man du wax di deltu ginnaaw mu ngi nii waxuma ko ni ko samay dëkkandoo dama ne ko baay ma ñoon dafa jox ay maire xaalis ñuy ñëw sama kër te loolu billaahi lasi laa ilaha illa maa leen gis maa leen téye man awma lu may ragal waa Thiès a ngi fii am na ñoo xam te ne xoolal ay daaw laa ko man man maa ñi nga xam te ne ay daaw laa ko lan man cent pour cent Thiès laa wax nga xam ne du jaay seen ngor ci ay dix mille yow mënoo maa jaxase sama waa dëkk bu arbi bi soufflé naa la duma dinaa la daan yow yow yow war a def da ngaa war waa Thiès ñaanal la moo gën doomu aadama day am respect fii say yaay yi fi nekk yaa ngi dégg de booy bëre yow déggoo li ma la xanaa man mënoo maa jaxase sama waa dëkk gis nga ki jugee Dakar ah yëf yaa ngi bëgg a neex de. ba ma juddoo ba léegi di bëri. bàyyi ma njoon léegi entraînement. bu su ma ko entraînement sama. yow a par jour. kii amul respect ci nga doon entraîné par xam ni du sa morom. wuyu ma ñaata nga doon par jour. ber damaa liggéey damaa liggéey. ah du ñuy wax léegi. liggéey na Modou ñaata nga doon entraîné par jour man pour l'instant nii moom deux fois rek laay def lu ma amul woon ba léegi mënu ma ko am daa liggéey damaa liggéey bu bis baa bu ñu summeekoo kenn ku ne dinañ xam la nga nekkee woon xeex ngay ubbee ndax bëri ngay ubbee li ma waxoon du ma ci delluwaat nee naa ma combat bi lépp day dépendre ci moom bu yaroo ma daan ko ndànk bu reewantoo ma duma ko daan ko bàyyi ma ñoon <laughs>